sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yépp bokki taalibe murit yëpp bokki réew mi yëpp ci kàddu ak ndigalal ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi tooge jataayub sëriñ tubaa tey ci kaw suuf yàlla na suñ borom guddalu fanam dolli kàttanam ak wéram ba yitte ji nga xam ne am na ko ci liggéey Serigne Touba ndax yëngutoom gépp ak dalam gépp bëggu ci dara lu may liggéey Serigne Touba muy kilifa gu mat kilifa kilifa goo xam ne foo ko séen rek sa xel dellu ci sa borom kilifa gu am yërmaane ci njabootam kon ñu ngi koy ñaanal bu baax la sëñ Abdul Ahad Mbàkke daa def boo ko ne yàlla nga gudd fan mu ne cel boo ko ne yàlla nga am ngërëmu Sëñ Tuubaa mu ne la amin gis gis naa ko ci moom kon ñu ngi koy ñaanal bu baax ci turam nag muy nuyu bokki lislaam ji yëpp di jokk bokk lislaam gi xam ne moom la seq ñoom te nam gën a rafete ci ne ko suñ borom santaane ci alxuraan innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum tañ xam ne bu ko mënoon fu ne tànkama fay dem moo tax fu tànkam mënta dem itam ndawam dem fa yéeneem dem fa di nuyu itam ñu mu seqal réew mi yëpp ndax àq dëkk doo waaye di jagleel am nuyoo nag njabootu Sëriñ gépp nga xam ne ñoom moom ñoo seq liggéey bi muy seere ak cantam ci ñoom ci topp gin topp ci ginnaawam ci jàppale ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa bayur kenn nag mboolem ku mu bokkal Sëriñ Tuubaa mboolem koo xam ne mbokk ga ci biir yoon de di taalibu Sëriñ Tuubaa ndax boo taalibu Sëriñ Tuubaa ñëpp tàbbi na ci biir waaye di gërëm itam ñi nga xam ne seen maam yi ñoo laxasaay woon ànd ak Serigne Touba te xamaguñ woon fu leen Serigne bi jëmee waaye seenu dogu ak seen pëstéef ak seen yitte ju kawe tax ñu jaay seen lépp jaay seenu juddu jaay seen lépp ngir Serigne Touba kon Serigne bi nee na mboolem seex sépp mi leen sant ci seen pëstéef ak seen taxawaay ndax kenn ku ci ne na samaam ànde woon ak Serigne Touba àndi nga ko moom te mooy topp ci ginnaaw di ko dillu te doo ko jiitu. te lépp loo jàpp ne baax la ko ko ngay jël jox ko kon mi ngi sant ñëpp di sant bokk taalibe murid yi topp ci seen ginnaaw yëpp bayiwut kenn ndax taalibe yi moom Sëriñ Tuubaa da ko batale woon ci fonk guñ leen war fonk ci làmmiñu Sëriñ Saliou laa dégg mu ne waxoon na Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadil ne leen seeni jaa jaamu yàlla ginnaaw li yàlla farataal ci yéen mooy lijjanti taalibe yi toppatoo leen amug yi amul amug yëg ci ñoom leneen lu mu doon rek maa koy defar sama bopp taalibe yëpp lu ci waa jébbalu ci nit itam sëñ Tuubaa lañ yaakaar ëllëg kon nag ndenkaane sëñ Tuubaa ci ñun mooy jaxasoo taalibe yi di muñ seeni bang-bang na ko Cheikh Mamadou di daa waxee ci ndax sëñ Saliou daa wax ne nit boo ko mënta boole ay ay ay ay ay sikkam ak ay ayibam yilif ko moto ko kilifa Cheikh Modou Mountakha kon bëtu yërmaande boobu lay xool ci ñëpp fa innahu wa in asawka yaa ahad li xaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdanahum la taqdiru ala balaika li doom fi yasaru ni Serigne Touba taxawe woon nekk ba avocat diggante julli di ak seen borom moom itam noonu la def ci diggante taalibe yi ak Serigne Touba xam na ne taalibe yépp seen bëgg génnu Serigne Touba moo tax mu am yërmaande jooju ñoom di leen xool bëtu yërmaande kon mi ngi nuyu ñëpp di dugg nag ci bis bu tedd bii nga xam ne moo ñu fi dajale di màggalu Tuuba di bis bi nga xam ne ci fi sëriñ bi bàyyeekoo woon di liggéeyali boroom liggéeyam bu tedd bi nga xam ne lépp lu fi jag walla lépp lu fi baax sababu si mooy liggéey bi ndax sëriñ bi kat waxoon na ne. laata may dem ci géej gi liimaan ak lislaam ak lihsaan ñëwuma ci nabiyul mursal ñëwuma ci malakul muqarrab waaye loo ko dese woon nag dëgg-dëgg mooy àgg ci yàlla na mu ko waxee wax ji day gudd boo déggee mu ne lillahi qad wasaltu inda galwa ci tukki bi rek dogu gu ci am ak yitte ji jaayanteeg suñu borom bëgg a bokk ci ahlu badr moo andi liggéey bi ak bëgg ram aw xeetam mu nekk lu diis nag loo xam ne daa waxoon ne astax li na fi soxla mooy ci ndimbalu kenn mooy dékku yan mooy dékk nattu yi dékku coono yi te lu ne daj na ko fu ne jaaral nañ ko fa te lépp mu di ko yëg waaye la mu waxoon as Cheikh Ibrahima Faty jëwriñam jëwriñam ja nga xam ne moom la bartele woon njaboot gi bi muy dem ne ko bi mu delsee ba maam Thierno di ko gàttandu ba sëñ bi nuyoo moom ba da ko ne tubaab yi de uh sax mosuñu koo dégg ci kon sëriñ bi jom ji ak fit ak yitte ju kenn xamul fu toll xam ngeen ne tumaranke gi ba mu déparé ba jugee Mbàkke Bari fu ne jaar na fa fu fu ne étape bu ne jàppoon nañ ne bu fa àggee sëñ bi du jàll ba àgg ndar wa iz yamkuru bika llazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuroon wa yamkurullah wallahu xayru makirin ñenn ñi wax ne nañ ko def résidence surveillée ñenn ñi wax ne nañ faat bakkanam ñenn ñi wax ne nañ ko géndere ñett loo naa ko fi daaw ka ko defoon ak fa mujj moo tax Sëriñ daraam lépp nañ ko bàyyi moom la sëñ bi daal di waxoon du ko ñuy xoolal du ko ñuy xeexal ku ñu topp la ku ku ku ku ku ñuy liggéeyal la Serigne Touba manal na boppam lépp moo tax bi mu fi jógee di liggéey àndut kenn fu ne jaaral nañ ko fi ci biir liggéey bi ndakaaru jàkk bañ ko génnee réew mi yóbbu ko Gabon sànni ko ci gott gott bu métti mooy diggante Mayumba ak ak Lambaréné dem ba ne ko sëñ Moussa ko waxee rek dem ba kenn déggatu turu sëñ Touba ba ñëpp jàpp ne sëriñ bi yoon dem na waaye ñi fi bàyyi woon mate ko mooy Cheikh Ibrahima Faty ak ñi mu yëngatuwuñ sax yóbbu liggéey ba nga xam ne bu su sëriñ bi nekkoon day mel ni mi ngi fi kon ñoom ñëpp seen taxawaay defar gi leen sëriñ bi defaroon duy leen duy leen bañ fees dell moo tax ñu àndoon ak muñ ànd ko dogu dégg ngeen ci Irwa na dim sax bi Ibrahima ba mu tàggoo sëriñ bi jooy metti la doon jooy waaye defaru gi ak xam ne wóor na leen ne sëriñ bi dana dellusiwaat te xam ne ñoom lay liggéeyal moo tax ñëpp toog di muñ ba fa àggee itam mu jaayante dogu dërëm yi ñu ko daa jox sëriñ bi di leen ko sànni yedii li mu wax neen karimin nafiin samadin laa li darahimi tati min solaytini katabtu fi lbahri anni laa amudu yedi ila nasara abidil maai wa tini nekk ca seen digg ba noppi defiyee leen du jël seenu dara seenu dërëm du jël seen alal du lekk seenu lekk tumuraanke gone mu daj ko fa fi ñuy wax làmbar na mooy barab bi gën a métti nga xam foofu kenn mënu fa dund surtout ca yooyu jamono mboolem yi fadde ak yi raye amoon na fa lu ñuy wax ay ngodd yoo xam ku mas a matt tookelee bàyyi ceew joo xam da ngay faatu sëriñ bi nee na ñu yóbbu ma teg ma ci ab kërëfër boo xam ne mosuma faa def lu ëmp nit bu julli ñu taxaw di ko reetaan ngir xamul lum doon léeg muy taw ci kaw lépp mu di ko dëkk mu di mu di ko dëkk ne na fa weeru koor woo xam ne wax na ne benn xaal la bënn bu waxtu doog jotee mu mu mos ko bu bu waxtu xëdd jotee mos ko àgg na ci am ñax daana ko jëfandikoo dégg ngeen sëñ bay jaxat di ko wax ne ko daa nga mosum ñax ba ngay mosum ñax amoo dul ñax foofu la bamba samaaniya xijajin illa qalil mu ne fa nag juróom-ñaari at juróom-ñetti at yu manqué tuuti ba yàlla suñ borom def liggéey ba àgg waaye matul nag dafa manqué ay weer ci ñaar ñi nga xam ne ñoo ci dox kenn ki di maam Cheikh Anta suñ gaawoon ndax sëñ bi fa sëñ Modou Lo Dagana demee moo ko ne neel Cheikh na ma jël si ba mu dikkee mook Cheikh Ibrahima ñoo fexe maam Cheikh Ibrahima fexe ba jege tubaab yi di leen dimbale moo moo moo suñ gaawaan ba yàlla def suñ bi ñibbi ci Sénégal te fekk desewoon na fa ñeenti weer ñeenti weer yooyu moo indi liggéey yoonu yoonu yoonu yoonu yoonu Mourtani lafa fa suñ bi moo tax mu dem moo tax mu wax ne man zanna zayri xibba aami aksasi mithla masiri rasa aami jaysasi thabata kawnuhu jahulan xumra bal huwa tadyibul ali lil umra lam yakun cheyru aksasin siwa jasa man li yaqaada baadu wax dan najasa looloo indi lam doon jëli mursani wax ne mbooleem li des li des ci lu baax ci kaw suuf suñ borom dafa xar suusu mursani dóor ko fa moom la suñ tubaa doon jëli moo tax daan daana wax ne ka der bu weex ak ak kawarum njañ gi moo fa des waaye lu fa doon baatin rek suñ bi indi na ko kon suñ tubaa nañ xam ne lu ko suñ borom fayee dafa daj coono bu rëy dëkk lu metti loo xam ne doomu aadama attunu ko mar suñ borom fayee ko li mu ko fayee bi mu ñibbisee itam ci la indaale sëriñ bi nga xam ne nag tey moo defar lépp moo tax ñu am jàmm moo ñu may lii ñu am itam lépp sëriñ Tuubaa ko liggéey la sëñ Abdoulaye waxoon ne ba muy taxaw di ñaan ku ne woon ci ginnaaw di wax amin sa amut biñ ko yóbbu Mauritanie fekk dañoo dañ doon wax ne dañ ko yóbbu Madagascar wala ñu yóbbu ko Mauritanie Cheikh Sidiya Baba yërëm sëriñ bi lool ñëw ci sëñ bi di waxtaan ak moom ne ko bu ma soyoon de nga bàyyi wax ak tubaab yi ma yóbbu ko Mauritanie ndax Madagascar dafa metti sëriñ bi ne ko na sam xeer dal ci sama digg ñoom ndax sama takkusaan ga ak ñoom kat duñ ko fàtte doo déggate ñu jël yëkkati lool jëme ko sama jëmm ji loolu nag mooy na jewtu min fitani al daa is xasado nii benn bil ma daafiyaan turan wa mboolem ñu dàq tiire leen dajale ca ca ca Gabon ngir ñu tiire sëriñ bi bañ ko tiiree waa ahlu bañ koy bëgg a tiire rek waa ahlu badri ñëw waa gis ngeen ko ci mbind jërul guddalaat dugal lañ ko ci biir am yeer gas ko ba mu xóot ñu tàbbal ko ci biir sëñ bi laa dettin na ko soxna jaaraa jàpp ci am bëggam génne ko ne ko bu ñu ko sab liggéey kon Serigne Touba lim am da ko liggéey suñ borom faye ko ko ba addunay tukki nag saa su xëyee du yokk mu jaar fa jóge fa dem ba ci yéen ci yéen itam la tax ñu yóbbu ko fa Mauritanie dañoo mujjoon gis ne yàggam fa yàgg Mauritanie gépp dañoo maase defoo say ba nëgë ne ku gëmul Serigne Touba néew fa ñoom dañuy wax ne sax ñoo gën a gëm waa Sénégal Serigne ndax am senegal am na ñu ko fi nuguru Mauritanie nag. ña nekk ay tijaan nag ña nekk ay ay xaadir ak ña nekk ci azasali ak ña nekku ci tariixa sax ñëpp a nangul Sëñ Tuubaa ñu gis na nag diggam ak al aalamul ñu ngi bëgg ubbi ko ñu ne nañ ko fa jëlee indi ko Sénégal yóbbu ko ci barab bu roqee muy muy ci yéen Jolof bañ ko fa yóbboo nag sëriñ bi nag mu nekk fursa ci moom ngir mu mën a defar nit ñi nag fa la tàmbalee nag defar nit ñi leen taxliya leen tasfiya duy leen bañ fees dell ba mujj tubaab bi wax ne rapport yooyu mujj def mooy buñ ko fi jëliwut dana mennum siñ Tuubaa lañ doon xeexal waaye dana mujj ay junni Sëñ Tuubaa yam ñu jële ko fa nag ne nañ ko indi jaaram raamoo masiri ila jurbel la daal lasasi law aan fi sayri maa ramoo wax ne wax ne ne nañ ma indi jaaram waaye buñ xamoon li tax ñu may indi jaaram de duñ ko def fa sayru mawtun la daaman naazau wa azan wa annahu liya ibqaun wa ikraamu foofa nag ñoom la leen di daal cal leen dale ñoom ñépp xam nañ la ca topp jur dellu siwaat waaye Serigne Touba nag nee na ko suñu borom wane li na li nar a xew ginnaaw ba mu fàggu lépp kon yoot wi nañ xam ne suñ Touba fàggu na ko ba dara mënu ko te àgg fa jëm dara mënu ko gàllankoor. ndax koo xam ne jële nañ la fi jox ndigal maam Thierno na tas daare tas kër yi cheikh sépp ñu tasaare leen génne la réew mi nekkoo fi ba noppi muy gën a dox kon kooku mbiram kuy nattable sax wala ngay xalaat ci mbirum Sëriñ Tuubaa war ngaa seeraat sa passif ndax yoon wi kat sëriñ bi doone du ci woon kenn dara waxoon na ko Cheikh Mamadou Moustapha ne ko noppi naa ci lépp ci njaarim la ko maa ngi mel ne ràbb bi nga xam ne dafa defar ay séram ba mu njëkk mu denc fu jamono tolloon rek mu génne aw soro loolu yoonu murit kon loolu mooy mbirum Sëriñ Tuubaa noppi na ci lépp fàggu na lépp li ñu ci war rek mooy jéema a góorgóorlu ci sàmmali ko bëgg-bëggam waaye la ci des yoon néew ji kon loolu mooy lii ñuy bëgg a waajal ci njaareem nag ci atum 18 ci li sëriñ Abibu Mbàkke wax dégg naa ko ci lam ñoom ñu bari dégg nañ ko ci moom ci la sëriñ bi xëyee bis nag wax ne nattu yi suñ borom da daa def saa su 18 safar accès fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar nattu bu ñu ko mas teg rek dañ ko daa fulaat ba mu tollaat lu ko ëpp ñu teg ko ci bis bi te ko yëg ne ko nit ñi di yëge ba ci atum 1918 nag. ci la ko mu di ko waajal ndax xam ne nattu yaa ngi bëgg a ñëw suñ borom xamal ko ne ko nattu yi jeex na ak pay ci des booba nag tàmbali di ko màggal ci biir kër gi ñaar at mu door a tàmbali génn ci bit at moom ko njëkk a wootee xam ngeen suñ mulaay nettil na ko suñ bàll faali jëng at mi mu koy yëgal taalibe na ne ñëpp xam ne lii sama bis dana waxal bàll faali jëng na ko wax fere yi loolu du sori we wala vingt et un suñu ko ñaari at wala ñett ci biir kër gi mu door a génn ci bit bis bi mu xëyee di ko woote itam dafa fekk kenn ci bokk taalibe yi di di dox ci àllum jaari bi seen ëglëg gu rafet ndax nit ñi lu ñu mës a gis ci lu baax rek andi ko sëñ bi biñ ko andilee sëñ bi sëñ bi ne leen fekk sëñ bi di waxtaan moo taalif ci ak xasida al arnab ci tubaab mooy ëllëg sëñ bi wax ne allahuma yaa man ajabani wa radita anni wa nafaatani wa barakta li mooy arnab ijabatan waridan wa nafan wa barakatan lam yushbax ila misliha wala yushbaxu ila misliha wa salabta ilaya fi yowmi xattiha sal xatta alqurana wa lisaan alarabi wa manafiaa dunia wal axirati fihima fa salli wa sallim wa barik ala sayidina mawlana muhammadi wa alihi wa sahbihi yama jaala hasihi alqasidata ahaba ilayka min kulli mawzunin qablaha ci la ko taalif moo daan leen xanaa lëggii di jaaxle na lool ñëpp ne tekk mu ko xam nga lu tax mu wax leen ko daa sori bokkam daa nii laa meloon ci wér tubaab kon bis bii nag Serigne Touba moo ko santaane de moo ko njëkk defal boppam itam daa waxoon na soxna Aminta Amari ne ko bis bi de dana dem ba àgg ci xumbu xumbu koo xam ne kudul man mi ko woote ak yàlla suñu borom mais sàkk bindee fi doo xam liwum ña ña ca ña suñu toll loolu ñëpp gis nañ ko kon loolu mooy bisu màggal gi sëriñ bi lim ci santaane. lim ci santaane mooy bernde kon li ma ci waxoon bu yàggul rek la ci li ëpp ci li ñu war a def mooy bernde ci bis bi li tàmbalee ci ganaar ba ci gileem ndax suñ borom moom lu ne moo xam bu koy digle ak lam ca dexañ lan yanaala llaahu luhuumuhaa wa laa dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwaa minkum tabaski kenn defalu ci yàlla lu gën a màgg ci jaamu yàlla ren ni mu xanaa kon nañ xam ne li jiitu ci li war a def mooy bernde yi Sëriñ Tuubaa digle da daa wax ne ku mënta bernde it na nga fekk fu ñuy bernde nga dem xewlu ja ca cay jamonoom euh, Cheikh Ibra ak Cheikh Issa bokkoon nañ ci ñi gën a ràññ ko ak Sëriñ Aliou ci indi fa ay teraanga yu bari dañ ko daa joxe ba mu wees penc ba ci biir dëkk ba kon sëñ bi bis bi fonkoon na ko te Cheikh Abdoul Khadir Mbacke waxoon na ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko wax ne ko sa baay de nee na ma bisu màggal Tuubaa de buñ demee ba ëllëg àjjana amutu bis waaye yàlla mi nga xam ne moo sàkkoon guddeeg bëccëg xam na waxtu bi muy jot képp koo xam daa nga sonne ci sama bis bi buñ ci àggaatee da nga yëg xéewal gu lu ko ci yow goo xam ne màggal yàlla ko may Serigne Saliou Mbacké dégg ngeen ñëpp wax ba tey mu wax ne Serigne Touba nee na ñaar buñ dendee kii di ko fonk kii di ko ñàkk fonk waxtu ne ngeen di ka ko fonk lu muy tiima ka ca des kon bisu bisu Serigne Touba la lu ci waay defal sa boppam koo lu jag ba noppi la it ndax Serigne Saliou daana wax ne màggal de day ndur lu jafee organiser waaye lu yomb organiser la ndax taalibe bu ne dana fexe ba këram jag kon màggal gi taalibe Sëriñ Tuubaa xaaruñ ci kenn mosuñ cee xaar kenn te duñ ci xaar kenn waxuma ñu ñii sax waaye taalibe ba gën a ñàkk gën a néew doole sax dana fexe ba ak màggaram jag am na ñoo xam ne buñ màggaree ci suba sax lañ ko tàmbali waajal ba déwén moo tax xat-xatu jamono du ko yëg du yëg naqari jamono loolu Sëriñ Tuubaa ko faggu wali si waay yettaxe deexu samaan li ci li ci gën a jox firnde rek mooy bi fi mbas mi amee ñépp jaaxle tiit waaye màggal googu bokk na ci màggal yi dàq ci màggal yi kon loolu moom du man du keneen du du du benn taalibe lu suñ Tuubaa liggéey lu suñ borom ba mu fay ko ko ginnaaw mi tam ñu war see jàngat jàngat bu rëy ndax ren la téeméeri at ci bi Sëriñ Tuubaa ñibbisee te loolu dafa am ndigal ñaari ndigal yoo xam ne da ko fee bàyyi ci ay waxtaanam benn bi mooy bi woote jumaay Tuubaa dafa waxoon ne bi mu wootee ba ñëpp daje dafa wax ne maa ngi leen di digal ndigal loo xam ne fu waay jëm na ko fa yóbbaale mooy lépp lu ngeen bëggate walla lépp lu ngeen sombate rawat ne lu mel ne néegub yàlla bii ni ngeen ci góor góorlu seen kem kattan te lu ngeen ci mënut ngeen dem laxasaay wuuti ko ci anam gu lew te fu ci seen te fu ci seen kàttan yem ngeen toog xaar fa sayaj'alu llaahu ba'da usrin yusran tariki nag maa ngi leen maa ngi leen di wattandikuloo lépp ndimbal loo xam ne bu leen fajalee seen ajo yit daañ leen xañ seen ngor xañ leen soñ seen jom tilmal seen diine daan yett yi de képp kum ne ci war ngaa fexe ba sàmm ko képp kum newu ci yow te war ngaa fexe ba ko nee la jiitu ca la koy maye nag mooy fexe ba mënal sa bopp la jiitu ca la koy xaye mooy ñàkk a mën a sa bopp ndax ku la mënal sañal la te bokkee ko yàlla na lay war a yàlla yàlla la yàlla na war a sañal kon loolu Sëriñ ak ko santaane woon njabootam gi topp ko la ci mujj mooy xutbatuwam sa sin mooy gaaw bi nga xam ne ci lay mujj gi sëriñ mujj gi sëriñ bi muy gaaw ba sëriñ bi wootee ba ñëpp daje sëñ Malick Jaay moo woote woon bi sëñ bi sëlmee takkusaan lam njëkkalaat dafa wax ne tey ñaata fan la ci weeru ñu ne ko tey la fukki fan ak juróom-benn mu ne kon na ngeen wax ak njaboot gi ñu dal te jekki fii ba gàmmu gi kon sëñ bi tàggoo na nit wax leen ne itam yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne ñett ci taxawuj yee yee cee tax mucc noppi jekke jaamu yàlla nangoo liggéey doy loola nga am na ngeen gàttal jéego yi ne fii ba gàmmu gi digle ci digle yu bari xam naa jotaay bi day gudd ba nga xamee ne waxtaan naa nit ñi ba laata timis mu duggaat ci biir sëñ bi waxtu yépp moo ko daa jiite ci jàkk ji ba mu sëlmalee itam ñuy baat fenêtre bi moo tàmbali di waxata nit ñi wax sëñ Madu Lamin Jóob Dagana ne ko jàngal suuratul baqara sëñ Madu Lamin sëñ Madu Lamin Jóob Dagana tàmbali alif laam miim zaalika al-kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin allazina yu'minuuna bil ghaybi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun wallazina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil aaxirati hum yuuqinuun mu ne ko looloo melaw melaw aw jullit daa mel ne ndab loo xam ne dañ ko def ba mu jekk te bënnut loo ci def rek mu def si mu ne ko wëyal mu ne inna na kafaru shawaan alayhim anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minuun xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim xishaawatun wa lahum azaabun aziim mu ne ko mooy melu yéefar daa mel ne ndab waaye dafa bënn loo ci defee def sotti ko suuf mënoo ko mënoo ko jàllal mu ne ko wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axir wa ma hum bi muminin yuxaadicuuna allaha wa lisinahum wa ma yuxaadicuuna illa anfusahum wa ma yashcuruun fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan wa lahum adaabun aliim bimaa kaanu yakasibuun mu ne ko mooy nafiq moom moo tax ñu bind moo tax bis bañ ci taxaw mu walla ko wala si yow ma unsila ilayka mu mooy alxuraan bu ma unsila min xablika mooy téere yi ko jëkk mu ne ko na ngeen fexe nag ba mot wattandi ko taasub mooy farfarloo li dal li daal diggante yahood yi ak nasaraan yi na ngeen fexe ba yéen bu leen ci bokk waxaalitil yahud laysati nasara ala sayin waxaalitil nasara laysati yahudu ala sayin mooy mooy yahood yi dañ ne nasaraan yi nekkuñ ci dara nasaraan yi ne yahud yi nekkuñ ci dara mun leen yéen na ngeen fexe ba bu leen dal loola nag moo war a murid yi képp ku baax rek nañ la nongul nañ Cheikh Abdoul Khadir Jeylaane nongul Cheikh Ahmad Tidiane mën na fa wëlbati ko nongul Sëñ Tuubaa kon loolu Sëñ Tuubaa mooy njàngal yoon bi ñu ko war a defee yoon boobee nag la cëli mujj gi sëriñ bi ba yàlla def gisatuñ ko ci saahir a ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ci mat ga ak yitte ju kawe ja ak dogg gi ak mate gi li ko sëriñ bi bàyyee mu fexe ba mu ñëw Tuubaa kon ñoom ñi ko fi wutu ren la ci téeméeri at ci démb biñ ko indee Tuubaa ak léegi liñ fi def ginnaaw bi it li taxaw lépp bu yoosoo jumaa njaarim ginnaaw bu Sëriñ Tuubaa ñibbisee lañ ko taxawal kon Sëriñ Tuubaa la mu waxoon ne suñ boom teg na ci sama loxo at def wal jëlbu fii ba ginnaaw ginnaaw bu ma bindee mi ñëw fii ba ñeenti téeméer wane na kon yoonu kenn kenn duñu ci dara lépp suñ Tuubaa ko defal boo loolu nag ku ko xam danga nga noppalu doo doo jàq doo jaaxle da nga xam ne lu waxtu wa agsiwut rek waaye lu waxtu ak rek dana yóbbu ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha ginnaaw bu mu indee suñ indee suñ bi Tuubaa boo Tuubaa ci fukki buntu kër matag ko ndax sëñ bi bëgg dalaa wax ne damaa bëgg ba bala faa mbooloo maa bari ma jiitu fa ba duñ ba duñ mën a yàq dëkk bi boo Touba matagul fukki fukki kër tey wax nañ ne Touba mooy dëkk bi ëpp ay nit ci Sénégal mooy commune bi gën a rëy ci Sénégal di département bi gën a rëy ci Sénégal kon sëñ Touba ak ñaanam nangu na Cheikh Mouhamadou Moustapha ñëw ànd ak taxawaay bu bët sëkk ci lam njëkk a def mooy raay bi xam ngeen gàllankoor yi ca ya ca doon xew ndax tubaab yi dañoo wax ne nañ ko ko may taxañ ko ko nañ ko may autorisation bi ndax bëgguñ ni ni suñ digg sëñ bi dëgër woon continuer di dëgër ndax ñi ngi tàmbalee maslaa waaye nag nañ ko ci degal condition yoo xam ne du ko attan waaye moom itam mu wóor ko ne la Cheikh Ibrahima Faty waxoon rek. néew ma xaw néew ma xaw ma sang de waaye xamu leen Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa du santaani mukk lu am te du sant mukk lu ma def mu ànd caaku dogo junni junni nit ak juróomi téeméer la xam ngeen nam demee la ci ñëpp def Cheikh mboolem kilifa yoon yëpp ñu gas raay bi diir bañ leen joxoon ak condition yi leen joxoon yëpp ñu matal ko liggéey ko ci lu gën a néew fuuf diir ba ba contrat bi amoon te contrat bi bokkoon na ca mooy bu ñu àggee ca date ba te àggut da di perte lépp mu góorgóorlu Pastef ak dogu jamono boo boobu yoonu boobu yoonu yombagut ndax doole yoonu wépp mbay la woon mu mu mu indi toole yi àllarba yi gor ay tool yaat daar naxi ba fu ne ca woon ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi ànd ñoom ba tàmbali jumaa ji ba fondation ko ba mu yëkkati ko mu door fee bàyyi ko ci jamono ji naqari guerre bi déclaré 14 18 xam ngeen ya ci xew diggam ak taléré day lu gudd waaye doggogom ci amoon ak ndam la ko ci defal ndax daa wax ne bu ma dëree sama ta sama benn tànk rek te kama daa far far ma li bëgg dinaa ko am na ma tege sama ñaar tànk ku ko bëgg a daaneel kama daa far far ma ba ba loolu amee ca tribunal ba ca kaw la mu àndoon nag maam Cheikh Anta ak sëñ Modou Moussa Fall ak sëñ Massamba ba mu duggee booba tribunal xam ngeen kenn du fa dugalaat dugaale ba xam ba mu duggee di summi kaale gi sëñ Modou Moussa Fall daa yuuxu waaye ba mu agsee tubaab bi ne ko leen laa bëgg xam da nga fay wala doo fay sëñ Modou du ne ko doo fay ndax tooñu ma bu fekkee nguuru France dama bëgg a daan nag na wax waxante ñoom kàddu yu diis xam ngeen nam deme ba mu fa jógee am ku ne ko tubaab bi ne ko da ko da ko da ko xupp ko ne ko boo deful li ma bëgg ya danaa dal sa ba mu génnee nit ne ko tubaab bi de ni mu waxee yow xaw ma dégg nga ko bu baax am ndax xam nga fi ñu jaar ak sëñ bi da ump la ca ko suñ mbir saa tontoo lii. ñu teg ci ay fan de guerre mondiale euh, euh, ñu ñu déclaré guerre mondiale bi tëlëri ñu faat ko fetal ko mu dee yëf yi dossier bu jeex kon mooy mbirum Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa li koy xeexal. dafa taqoog moom Cheikh Mahoudou Fadi Mbacke ñëw fa Cheikh Mahoudou Moustapha tàmbale woon mooyee fa jëm ci kaw def yitteem jëpp muy jumaa yi boobu li la wax yoon yoon yu neexagut la mu njëkkee def mooy gor ay tool ngir man àggalu jumaa ji ànd koog Cheikh Seck taalibe Sëriñ Tuubaa yi Tuubaa boo ko ci la bokk sonn ci lool booba àgg na ci fii ñu toll nawet bu agsee liggéey jumaa ji day taxaw ndax nit ñi amatuñ amatuñ luñ ci joxe noonu lay liggéey jumaa ji waaye seen jom ak seen pëstéef néegu tabax sax nungu ko am néegu ñax ci dëkk ba jumaa ji àgg loo wax ma ne bala kenn tabax na liggéey suñu tubaab bi àgg ubbi dëkk bi ci la yoon wi màgge nag tasaaroo ci bitti ba àgg ko di war ubbi yoon wi woote màggal gi nga xam ne Serigne Touba da ko woote woon ci njaareem ne bu agsee na ko ñëpp sant la yàlla ginnaaw mi tam Cheikh Maodo Moussa wéyale ko na ko sëñ bi defoon bi Cheikh Maodo Fadi Mbacke ñëwee ci la ko woote fii ci Touba mu tolloog nawaytu shukrahu la daa daari salaam wa indi Touba bi jismin wa xilaam nawaytu shukrahu bi fardin wa sunan wa hinda daari minan kon ñoom ci loolu lañ ne ci la nekk ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw Cheikh Modou Fadil xam ngeen ne moo fi indi tëli yeeg courant beeg forage yëpp ci xilaafam la ñëwee ci la dëkk bi door a doon ab dëkk dëkku jëkk yolaas bu tuuti la woon ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëwee nag nosaat yoon wi indi daayira Serigne Touba yi indi kër Serigne Touba yi boole ci raxas dëkk bi ba dëkk bi mel nii mel. mooy lii Cheikh Mouhamadou Mountakha dénk jabaru Cheikh Ibra gi tey ndax Serigne Touba dafa taalif xasida ak Matlabul Fawzayni ba ko ba ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di itam lu xóot la loo xam ne neexatu wax ci rajo waaye lu mu déggoog Serigne Touba la ñooñu lu ma daal ci village ci li Serigne Touba bëgg amul sama bakkan laa ci dëkk mooy lii Serigne bi di sàmbula jabaru Cheikh Ibra gi tey. muy suñu am di ñu ngi ko ci ñaanal bu baax mu yàgg koo taxawee sëriñ bi nga ko ci sant ndax man loo foofu sëy ni sëriñ Tuubaa da koo taalif wax ni wax ni dëkk ni bëgg dëkk bi mel ni kon loolu rek lañ jug ñoom di ko sàmm dolliwu ci dara teere sëñ bi daal waxun yooye képp la Cheikh Mamadou taxaat di terewaat lañ ci yeesal rek mooy wàllu politik ak wàllu football bi ndax loolu itam boobu melu gunni ci jamono moo rax sëriñ bi wax ne na mu ko teree woon démb mi ngi koy yeesalaat ndax xam ngeen yàqut dara firnde ji mooy bu ñu àggee ci élection yi nit ñëpp kenn ko ci ne jug nga wata ji seet kala neex nga watee ko ca na nga ko bëggee te yàqut dara waaye nag politique bi li mu doon yàq ci dëkk bi nag mbiru àdduna jëru ko ndax day jaxase xol yi te politique jërul loolu leen boole li ñu boole mooy Sëriñ Tuubaa li ci def lu jaar di jàll la rek li ñu boole mooy Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ji ñu boole nag bu kenn ku ne dee xool moroom ca ca sa jëmm dana danañ xam ne ñaari politiciens yu juyoo jëru jëru di mere kenn wala ku gàttum xel koy def bu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëwee dajale yoon wi dajale seex si dajale kër Sëñ Tuubaa yi nosaat yoon wi ba la mu waxoon ne yoon wi de danaa ko nos ba teg ko ci yoon wax néew du fa jóge di waaye du gaaw kon ñoom kenn ku ci ne lay sa ndax buñ duggee ci di ko wax jataay du ko may bi mu fi bàyyi ko Cheikh Abdoul Khadim Mbacké ñëw wuutu ko ca liggéey ba ñoom ñaar seenu xilaafa dafa ànd si si bi ñu ko yëgee ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bàyyi na fi dafa wax ne maag sëñ bi de gopp ak kon ñoom ñaar seen liggéey defaan na sëñ bi daal daana wax ne ba ñu Sëñ Tuubaa di boole daa dàq seytaane boobu doo ñëw boole mu bàyyi ko fi Serigne yu Mbacké ñëw bi mu dikkee itam fañ fañ fekkoon liggéey bi mu yokk ko gis ngeen li mu def ci jumaa ji kër Serigne Touba yu bari ci dëkk bi yokkaat dëkk bi itam ba dëkk bi bu benn mu yokk ko ba mat ñett lotissement yëpp te nungur ko ko jaay daa ko topp di ko yokk di ko saytu ak titre foncier bi nga xam ne yàlla def na ci biir ak xilaafaam la ko suñu borom dogale ak liggéey yu bari mooy lu mel ne te xel koom bi mu fi bàyyi ko man na fukki daara ak juróom yu bokk te yeneen daara yi ci des bàyyi fi fukki milliards ak juróom benn def ko addi Sëriñ Tuubaa bi mu fi bàyyi ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw woyal liggéey bi moom itam bokk na ci la ci jëkk ndax Sëriñ Saaliwu assainissement bi njëkk a def ci dëkk bi tolloon ji 600 millions moo ko def ay 93 94 moo tàmbale woon ci station Darou Khoudoss tàmbalee fii ci wetu ginnaaw kër Sëriñ Tuubaa gi dem ba kër ñag mooy la fa jëkk am Sëriñ Saliou ko defoon ba yàlla def Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw bokk na ci liggéey bi mu njëkk a def yàlla def na man mi maa ko doon taxaw boobu société bu ñuy wax EFAS ñoo ko defar mooy assainissement li wër ja xam ngeen ne budu kër Sëriñ Tuubaa gi ñépp xam nañ nim mu daa ak buntu kër doomu Sëriñ Tuubaa yëpp ak buntu armeel ya loolu bokk na ci liggéey yi fi njëkk a def boole ci it tëli yi nga xam ne jëm na ci quartier yi ak kër Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne naaloon na ko mooy géemu joxoon Sëriñ Seex Jëmbu ci héliport fala mujje ànd ak moom sax ginnaaw ndajem mañ doon def njaarim biñ tegee xeer laata ñu tàmbali liggéey bi la fi bàyyi ko kon moom itam la ko waroon ci liggéey lépp def na ko Masaalikul Jinaan itam yàlla def na suuf si biñ koy joxe ci xilaafam la bañ bañ tax xeeru yàlla def mu bàyyi fi ginnaaw bi ak Cheikh Sidi Moxtar yow bi mu li ko gën a ñor ci liggéey bi la ci jiitu mooy Masaalikul Jinaan mu nekkoon somb wu rëy wu yàgg waaye yàlla def mu def ci jiite def ci jëf jom 2012 lañ ko tàmbali bi mu fi jógee daanaka la ci des ma tudd sax ay ñetti milliards yi ñeent kon moom lam ci des sax ëpp na daanaka fàtte na lim waaye bari na daana fekk na soorool yeeg lépp ci décoration yi sa àgg liggéey liggéeyal Sëñ Tuubaa ci jumaa ji ñaari soorool defaraat biir jumaa ji lu bari ci karaw yi ñu sopp ko ak yeneen liggéey yu bari bokk na ci it kër Sëñ Tuubaa gii ci Daaru Manaan nga xam ne sëñ Saliou moo ko Masamba ñoo ko defar ci njiital sëñ Moussa ak siñ mamoor ak siñ Cheikh mu sëñ Mahooda mi doon seen jëwriñ ñoo itam ñu liggéey ko na ko sëriñ bi bëggee woon ba cee sax mu jox ko sëñ siit naar jenn moo itam mu defar ko mooy mbaar mi nga xam ne moo fa nekk bu liggéey bi àgg loolu itam bokk na ci ab liggéeyam ba suñ borom def te loolu des na yu bari yoo xam ne dama ko du teewlu ab liggéeyam mat Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw bi mu dikkee itam moo fekk fi ay naal yu mu fi fekk mooy Masaalikul Jinaan des na jumaay Tuubaa ji àggagut waaye mooy nañ somb ñaar yëpp waaye université bi mooy sama yitte kon nañ boolu ñett yëpp ma yërëm ko ci lool na xam ni mu diise waaye mu ne ma ñun de nañ xam ne suñ compte mooy Sëñ Tuubaa luñ somb ta luñ song ta am ci doogu rek dana àgg xam ngeen ne fi mu toll nii liggéey ba sori na loolu université bi du ëpp 30 milliards te la ci ëpp àgg na xam ngeen ne boole kook àggale Masaalikul Jinaan àggale jumaay Tuubaa ji loolu ay somb yu rëy la kon ñu ngi ko ñaare moo itam mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba motti naal yi nga xam ne am na ko ndax am na ay naal yu rëy ci dëkk bi yoo xam ne bu àggee rek ndax dégg ngeen ci làmb ñam bu wax ne bu dul woon ak université bi sama yitte jëpp mooy ndox mi ñëw ci biir dëkk bi kon mooy itteem xam naa kon incha allah balaa diir bu gàtt yaakaar naa loolu daa nekk yitte yitte joo xam ne ndax sëriñ bi yërëm na lool taalibe yi yërëm na leen ndax xam na dëkk bi ñaari ndox yi ni mu leen sonale mooy ndoxum naan bi ak ndoxum assainissement bi mi leen di masoo te koy ànd ak ñoom ndax xam ngeen ne kenn ku ci ne daanaka kenn mucc kenn muccatu ci man mii sax bu ma xëyee sama kër di ñëw fii damay teggee tegg ba sonn doomu am foo jaar waaye li muy metti metti metti am na ñoo tane ndax ci këram ne ci biir ndox mi moom kenn mënu ko wax lu tabari na bari na ñoo ay kër yoo xam ne génn nañ bari na ñu génn seeni kër loola nag lu metti la loo xam ne la ko waral la ci ëpp kon mooy dañoo dëkk jiitu assainissement bi ndax Touba bi suñ Touba ñibbisee Touba boobu mi ngi toll ci fukki kër assainissement biñ fi njëkk def boo am na téeméeri at bi fi suñ Saliou njëkk a def ci xaalisu boppam boo Touba am na téeméeri at kon assainissement. ni ko dëkk bi jiitoo dafa ëpp boo xam ngeen dëkk bi wees na bi di wéy loola képp fi newoon ba ginnaaw suñu Saliou leneen li fi amaat lépp nag yàlla def na man mii ci sama xalaat la jóge xaw naa ci xam lu bari ndax lañ fi jëkk def ab président Abdoulaye boo ko fi def ma tàmbaloon fii ci buntu kër Sëriñ Tuubaa gi dem ba ca post contrôle daal di continuer jaar kër ñeeg jàll mooy assainissement bi fi njëkkee defaat bu bu weesoo li alaj baax def mooy jumaa ji kon lu ci ne xam naa fa mu jaar 2012 bi nga xam ne président Macky Sall ñëw na it ku fàttali ko at moom inondation bu metti moo fi amoon moomuñ ci dëkk bi booba Sëñ Sidi Moxtaar yëkkati un milliard ngir bëgg woo taalibe Sëñ Tuubaa yi ñu defar ko far moom mu jël ci engagement ci la tàmbali assainissement ba njëkk a def ba 2019 2019 at mooma fekk ñaari at yoo ko jëkk yëpp fàttali naa ba taay ne leen màggal gi de buñ ko waajalut fekk at yu néew dana dugg ci biir nawet loolu nag mooy la agsi 2019 ci lañ ci defaat li li fi ñu toll loolu nag liggéey bi dafa àggagut moo tax mu xaw a metti ci nit ñi ren ndax yàlla def bi mu fi jugee nguur gu bees gii fi ne ko xam nguur waxoon naa leen ni ren sëñ Sadio dafa wax ne nguur gu bu amagul ñeent fu guddi kenn du ko teg soxla ñeent fu guddi yi weesoo léeg-léeg sax nit ñi ne ma dañ leen yërëm bopp wala dañ leen layal man layaluma kenn xalaatuma ko sax sëñ ko ndax liggéey sëñ Tuubaa bi suñ bakkan lañ ci teg suñ pësteef lañ ci teg suñ dégg sëñ Tuubaa luñ ci seeral kenn lu mu defut ndax waaye boo xamee danga xam ne diirum ñeenti weer ku ci yaakaare mën naa tàggoog ndox mi nit mënta nekk ndax liggéey bi àggagul ña ngi cay liggéey góor góorgóorlu nañ nag def ci jéego waaye dafa des beneen jafe-jafe bi ci am nag xañ ne comme ñoom bi ñu door agsi xamaguñu woon liggéey bi ni mu demee ndax daaw ba seeb kër ñang bi dañ faa déggoon pompe boo xam ne six mille mètres cubes la daa yóbbu ndax xam ngeen ndox mi jóge ci dëkk yëpp fa lay jaar moo tax ndox mi dawu fa taxaw leen li dem kër kàbbu la ca des dem pof di fi ñu wax ngelaw itam pompe dafaa ne woon du yóbbu kër kàbbu yàlla def nag bi nawet bi duggee pompe ba ma nga toll ci deux mille huit cent kon dafa manqué lu bari bi fi ministère bi ñëwee leeral naa ko bi mu ko xamee it bi mu fi jógee wax na ne ñi ngi monté pompe pompe yi dafa noppeegut li fi noppeegut nag ndax taw bi da koo téye woon ba tax mënta jàll loolaa waral bu ngeen seetloo ren fu mu tawee rek mu metti ndax li ko waral mooy buñ ubbee buñ ubbe buñ tëjut buñ tëjut machine yi boobaa këriñam ci boppam ndox ma day sottu ko seen kaw moo tax ñoom itam dañuy bàyyi machine yi muy dem ndànk-ndànk ba këru machine yi ba noppi waaye kon nag comme ñoom dañuy door a toog. moo tax nit buy door a toog doo ko mel na ku koy teg personne jox loolu du suñ baax ndax Sëñ Tuubaa dañoo tere dañoo tere jàmbat ku def lu baax ñu sant la waaye ku defut la nga war a def itam murid moom xaaruju kenn ci dara kon nag ñoom ñi nga xam ne seen warteef la te dañuy door a toog xam na xam nañ ne ren jàmp na kon liñ ci man rek mooy fexe ba génne ndox mi ci biir kër yi jàppale ci nit ñi ndoxum naan mi it alhamdulilah rabbil alamin fi ñu toll bu fekkee forage yi paan bari na yéegagum xëy na benn lay doon wala ñaar ñu def ci yitte ba benn forage bañ a paan ndox yi nañ ko defee woon daal oto yëpp ñu fexe ba dolli ko bareen jaal te màggal gi rek ñu fexe ba déwén ñu def ci yitte ba ndox mi a manqué at waaye comme atum ren la loolu moom. da ci am loo xam ne nit yi de xam lu yoon maanaam waaye nañ ci gën a dolli ndax nit ku ku ne ci biirum ndox ay bagaasam di yàqu ab dundam di yàqu kooku taxaw ko métti na am na sax ñuy wax naan nañ jël nit ñi dugal leen ci kër Sëriñ Tuubaa waaye kër Sëriñ Tuubaa yi dafa bëriwut kër yi kër Sëriñ Tuubaa yi buñ fa dugaloon nit sax fi ne mënoo ko génn fii ak màggal ndax màggal ci biir na nawet bi ba ca des mooy ñun ñii sax gan ñi ñi am kër Sëriñ Tuubaa day fees ba li ñuy luyee ci ay kër dana mat fukki million kon ku amagut néeg yu doy ngir gan xam nga kër yi du luñ mën a ubbi xëy na nit ñi dañu xam li ñuy wax wala dëkk bi dafa am nu muy doxee dëkk bi dëkku kàddu la dëkku baat la li fi indi nit ñi ak taalibe la ak taalibe lañ àndee sëñ waaye du sañ-sañu lu la neex wax wala noo ko gisee nga wax ko loolu moom. nañ xam ne yërmande siñ bi moo leen may li leen am li ñu am looloo leen ko may bu tolloo yërmande sëñ bi kat la sëñ Saaliw waxoon ku koy bañ kat ci dëkk bi nga koy bañee waaye boo demee Mbàkke gii rek mu teg ci sa kaw kon la bi daa wax rek yaar dara dara amu ci solo xam loo amut ak am loo xamut xam loo amut ak am loo xamut kon nag ñun li ñuy bëgg dal mooy li ci àdduna te mooy ku ñëpp ñette ñëwu sa bopp Touba dëkku bi yërmande la Serigne Touba ko ñaanu borom waxee tam ne ku fi sam xel indiwutit sam xel dina la fi indi kon loolu nit ñi fi dëkk am tawféex yi dëkk Serigne bi la Cheikh Mahoud mu taxaw waxoon rek nañ doyloo Serigne Touba te xam ne Serigne Touba fàggu nañu lépp te te ku ci ne ci dog yu itam nala la wóor ne Sëñ Tuubaa daan la fajal say aju saahir baatin ndax firnde ji kat mooy Tuubaa mosuñoo toog di xaar dara ci nguuru ndax raay bi firnde la ci Sëñ Saaliw ba mu fi njëkk a def assainissement ci dëkk bi ba fi njëkk a def assainissement booba alali boppam la ko defee Tuubaa képp ngay ngay dugg ci dëkk gis fa ay tëli ñun la ay daayira ko def nga gis fa ay poste de santé ñun la ay daayira ab daayira ko nga gis fa ah, hôpital ñun la ab daayira ko def gis nga gis fa forage ñun la ab ko def kon loolu ñoom xaaruñ kenn xaaruñ ndimbalul kenn lu leen ci waaye di fekkee dañ leen cee fekke ba ci màggal gii leeral gi day baax ndax day dimbali nit ñi ndax man baaxuma sax di weddente ala tontonte du sama jikko gën a du ma ko defit bu dee lu jëm ci sama jëm moom damay bàyyi rek addunay atte ak ak taarix muy atte waaye weddi moom um solo ndax la ci Sëñ Saaliw waxoon rek Sëñ Abdou Lahad Sëñ daa waxoon ne saa suñ la waxalee dara nga weddi ko boo bu buñ la waxaatee nga weddi mënoo ci dëkk te boo we boo weddee lii bàyyi lii kon ya la nga weddoo yaa ko saxal Sëñ bi Lahad daa waxoon ne liñ lay tuumaal moom dee ko weddi ci say jëf waaye bu ko weddi ci say wax dee ko weddi ci say jëf waaye bu ko weddi ci say wax ndax nee na mënoo luñ la tuumaal la nga weddi ko wala danañ la tuumaal ba tuumaal la loo xam ne sax doo xam ne tuumaal nañ la ko waaye nag bu dee loo xam ne nag luy dimbale taalibe yi ngir ñu gën a xam loolu deme na ne farata la ndax at yi weesu nit ñi lu ne wax nañ ko maa ngi fàttali ko 2012. màggalu Touba agsi du ma ko fàtte maa ngi jógee kër si Touba gi di jëm Daaru Manam nit woo nit woo ma ne ma damaa dégg ñu dañ fi indi ambulance bu xaalis da ngay seet wax jooju loolu kenn xamul lu am xanaa xaalis ku ko doon def doo ko def ci ambulance ambulance la bu nit jox ko Sëriñ Sidi Moxtaar addiya boo yi dafa jub si nit ñi nit ñi yàqee rek xam naa ko ko wax sax waaye du ko tudd wax ko de kooku tasaare ko ci rajo yi. te nit ñi lu ñu dégg gëm ko duñu xool sax lu yenu maanaam lu yenul maana lu ne danga ko dégg waaye fii nañ xam ne la Sëñ Tuubaa waxoon la Sëñ Tuubaa waxoon ci diggam tubaab yi dafa waxoon ne sama digg tubaab yi kenn doyuma ci moom ci ñoom ndax ku dul man mën nañ la xupp walla ñu xëpp la man nag mënisuma xupp mënisuma xëpp loola na képp ku fi nekkal Sëñ Tuubaa ku ne nit ñi dañ dul xalaat waaye sëñ Muntaxa wala ña ko jëkk lu leen nit adduna mën a defal lu tax lu leen taalibe sëñ Tuubaa defalut lu leen nit nitu nguur jox ci at balaa ma ñaar fan at taalibe jox leen ko te duñ ko jëfandikoo sax am naa ci lu ma leer amu ci kenn koo xam ne lañ la jox yaa ngi koy jëfandikoo dañuy suturaal rek màggalu Tuubaa gi liñ ci ñàkki kenn xamul nu mu ñaari nguur yi nga xam ne sama kanam la moom te xam naa ne jàpp naa ne ñoo tane ñi leen njëkk liñ ñuy def ci màggal gi buñ ci génnee lañ leen di ganalee du ko ko mat te nit ñi xamuñ ko waaye ñun Sëñ Tuubaa tax ñuy def ku teraange Sëñ ji lañ lay jox xamuñ leneen te lii ma wax yomb naa yomb naa yomb naa vérifier ñaa ndax ñi ko doon def ñëpp ngi dund kenn faatuwu ci li ñuy joxe ci màggal gi muy jëm ci ñun ñi moo ëpp li ñu leen di ganeele ko ëpp loolu daa martal leen ndax day gindi nit ñi mu dimbali leen ñoo xam ne màggal gi taalibe suñ Tuubaa yi ñoo koy def kon nag ñi ngi sant taalibe yëpp bàyyiwuñ kenn di ko tàmbalee ci buñ tuddee njabootu Cheikh Ibra tudd nañ bokk taalibe yëpp tudd nañ Cheikh suñ Tuubaa yëpp waaye di sant ñi nga xam ne seenu taxawaay dafa fiche ci màggalu Tuubaa gi tàmbalee ko ci commune Touba Mosquée di Sëriñ Abdou Lahad Ka di ko sant ci taxawaayam ci màggal gi ndax kilifa moom boole woon moom waaye lépp lu ko war ci màggal gi ma ngi koy def ñu ngi koy ñaanal yàlla gën koo kattanal ci loolu ba ni ñu ko ànde ñu yàgg koo ànd ci barke Sëriñ Touba di gërëm waa daaira Hisbu Tarxiya tudd nañ leen léegi seen taxawaay xam ngeen ni ñoom leen Cheikh Mouhamadou taxaa di wax nee na ñooy soldaari yoon wi noonu leen suñ muntaxaa di wax duñ noppal guddeek bëccëg seen taxawaay rafet na bu baax ñi ngi gërëm itam waa daayira muqaddamatu xidma ndax xam ngeen ne jumaa ji sàppe yeeg li ci ajoog xorumi li ko wër lépp ju ngi koy taxaw amuñ guddi amuñ bëccëg seen yitte jëpp ñu ngi koy jëmee ci liggéey suñu Tuubaa ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm waa daayira Rawdu Rayaahiin lim nañ mboolem taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir commission bi di gërëm itam waa daayira Touba ci kanam xam ngeen ne bu màggal gi desee weer ñoom itam liñ man lépp ñu ngi koy def ci defaraat yoon yi ak defaraat barab yàqu yi xam naa nag du ñàkk ñoo fàtte xam naa ñu fàttali ma ko di gërëm ñi nga xam ne ñooy journaliste yi nga xam ne ñëw nañ fi ngir jàllale bis bi ndax xam naa li ci am solo rek mooy lii moom liggéey Sëriñ Tuubaa la ku fi ñëw it kuñ tudd kuñ tuddut amul solo bala maa jeexal nag. ma sant al lajnatu tanzimiya mooy kuréel gi saytu màggal gi leen beral seen cant ci njiital sëriñ Ousmane pëstéefam ak dogoom ak taxawaayam te li li ci ëpp solo mooy li muy def lépp jëm Sëriñ Tuubaa tax rek maa ngi koy wax nit ma ne ko bu ma ne nekk fii am jàmm pëstéefam ak taxawaay ak dogoom ak mbali ñu ngi ko seqal nag kuréel gépp nag mboole mboolem ñi jiite commission ku ci ne damay bañ di lim di si juum waaye bàyyiwuma kenn sëñ eh, Cheikh Abi mi jiite commission santé ak action sociale yaakaar naa bu ma juum damay bañ juum ci ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm Serigne Cheikh Abdoul Mbac Ahad Mbac Guèye Faat mi nga xam ne lii lépp moo ko doon organisé ci moom itam positif ak taxawaay ak dogam. di gërëm suñu Cheikh Marème mi nga xam moo jiite commission organisation di jiite sëriñ di nuyu sëriñ Abo Mbakke mi nga xam ne moo jiite secrétariat général di lim bi nag moom moo tax ma ci bayu juum daanaka daal boo xam siita du suñu rek moom mi nga xam ne moo jiite lépp ñëpp tàbb na ci biir maa ngi leen beral sama cant ak sama gërëm ci liggéey bii nga xam ne nee ko suñ Bachir Mbacké Poroxaay mi waxee ndax dama ko wax léegi na ko yow da ngay da sa jotaay day soññee waaye juróom suñu Moussa Bassirou suñu da ko daa seereel ne da ko de ak taalibeem ak ak ku wéetli ko ñoo ci am ñoom nag dañ leen a tàggat ci loolu ba mënuñ ko wàcce ngir wax ci màggal gi rek moom mi waajuram màggal Tuubaa agsi na jamono naqari déqee gi ñu ay toolam mu watt gerte gi dem jaay ko def ko ci màggal gi kon màggal gi moom mosuñ ci xaar kenn Sëñ Tuubaa da koy defar bu noppi sax màggal gi dafa jag lu jag lu sotti bu noppi la loo xam ne kon lu ci waaye def ñu sant gërëm waaye liy jëmi màggal gi moom positif taalibe yi la taalibe koy defar seen kenn xaaru ci kenn waxuma ñun ñi sa waaye kenn ku ci ne sa kër ko ci kenn xaaroo ko ci kenn ndax loo xam ne budget biñ nattalee daaw wax nañ ne cinq millions huit cent dugg na ci dëkk bi ak ñi fi ne mooy juróom millions yu bëgg a tege daanaka juróom benn million te day yokk at mu jot kon loolu ñu ñu xayma li li fiy dugg ci koom-koom cent quarante milliards bu néewee ba néew xam ngeen ne kon ni ma leen wax bu fekkente ne bu ñu waxee ne la fi nguur di dugal mënu leen a gànna la ñoom kon xam ngeen màggal gi taal bi suñu tubaab yoo koy def kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fas yéene eh, ànd koog yéen suñ Mamoor lim na lépp programme yeeg conférence yi ñu ci war def yi ci gën a fees nag mooy ñaar yi nga xam ne benn mooy njabootu sëñ Mor Kuna Mbàkke ndax moom ku ne xam na lim doon ci sëñ bi ak pësteefam xam naa ci du bari ndax jox xadaa il xaaji moo tax sëriñ bi taalif ko sëñ Aliou Diouf Lambaye ku ne xam na ab juddoom waaye dafa jaay lépp dafa jaay lépp jënd ko taalibe loolu nag bu ngeen gisee ñu di ko def mooy xamle ñi ànd ak Sëñ mooy wane Sëñ Tuubaa te damay waxtaan ak ñu bari ñëw bokkal Sëñ Tuubaa ma ne leen képp ku bëgg Sëñ Tuubaa képp ku Sëñ Tuubaa defar na ngeen leen ko yéene ndax ñooy defaru sëñ bi te bu ngeen leen ko yéenewut te mun leen ko nangu da Sëñ Tuubaa ndax dañ ko ñaq liggéey ko Sëñ Tuubaa faye leen ko yéene leen ko nag bokk na ci gëm sëñ Tuubaa waaye ku leen ko yéene wut nag day mee ne sa gëm sëñ bi des na ndax sëñ Tuubaa kat bu fekkonte ne ne gënaloon na ko bu fekkonte ne du jikko du jikkoom ji mu am kon af seex lu am kon ñëpp mën nañu aju ci njabootam mu jeex waaye kon kon du tudd yoon suñu say lu daa wax ne bu ñu wax yoon wi seex see tax kon sëñ Tuubaa ko njabootam dañuy wax kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan màggal gi ñu digg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi alamin tey ñaan nag jëpp bépp yëngatu buñ ci def yàlla na ko Sëñ Tuubaa gërëm lépp lu ci bokkut wala gën a lu ci Sëñ Tuubaa yàlla na ko Sëñ Tuubaa dindi bam sedd wicc ba lépp di positif kese ndax kat Sëñ Tuubaa sëñ bi laa daana fecc def saako te kenn mënu koo naxit kon yàlla nañu dimbale ba rëcc rëcc yi ci am ci doomu aadama yàlla dimbali ba ñoom ñu mucc ca ba lépp di pësifu kese ndax bu dee pësifu kese kat da yomb waaye nag bu ci àdduna duggee rek siñ bi génn kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaw kon balaa sëñ bee ñaan rek ñu jottali daayira Muxaddamatul Xidma bi nekk ci jumaa ji ñoom it ci yëngu yi ñuy waajal màggal gi dañuy wax ne dana am conférence bu mag boo xam ne ñu ngi koy def ci la 11 safar ñu ci waxtaane yoonu murit téeméeraat ginnaaw sëriñ bi sëñ bu Bousso Assane moo koy waxtaane exposition bi ñu baaxoo def ci biir jumaa ji it dinañ ko def li dalee 15 safar ba le 19 safar incha allah wasalaamaaleykum naa ne doom ma it loolu la ma it bi loolu ma julli it bi sëñ yaa ci war a taxaw man maa ko yoroon di ko def yow gis nga ma fanaan liggéey seen bagage yu bëri yooyu bu ma ko tuddee ko man ñaari benn man ban الحمد لله حق